ay membres collectif non langue dañ doon joxe di séddale ay flyers dajeeg sénégalais yi personnes retraitées yi liggéeykat yi fële ci Médina boobu leen fa police fekkee jàpp leen bañ leen di jàpp sax am na ñenn si ñoo xam ne yenn policiers dañ leen leen saaga comme caat dañ ko saaga toroxal ko te dañ koy dañ jàpp sax dafa kon mu toog doxutoon sax far dafa toogoon. te teewul bi ñu leen jàppee yóbbu leen ci commissariat bi ñuy ut ñu leen di ut a toppee da ngeen a def ndaje boo xam ne ndaje bi yii wut benn ñaareel bi mooy ne aussi yëgalu leen ko yëglewu leen ko loolu benn la bi ci topp fan yee ci ginnaaw dafa am lii dafa xew ci jamono ji nga xam ne ay manifestation bu amee ay policiers yu amul yu siwilu wala sax xamuñ ndax policier lañ wala ay sàmba booy lañ ñu solu leen neex ñooy ñëw di jàpp nit ñi ñu ne ah artu jot na ndax kat état de droit bi ñu ngi koy menacé suñuy liberté ñu ngi koy menacé te lii di raam buñ ko bàyyee baaxut ci réew mi ndax réew mun nañu tere ay as citoyen ñu dem dajeeg yeneen citoyen waxtaan ci loo xam ne d'accord nañ ci wala ci luñ d'accordul si jamono ji nga xam ne ñoom waa APR yi bu leen neexee ñoom distribuer flyers te kenn du leen ci topp ñu ne nag instrumentaliser ak utiliser police di ko xeexee te seen doole doole askan wi yépp la loolu baaxut ci suñu police baaxut ci askan bi te bu ñu ko seetaanee ëllëgu sibirkat xëy na booy dem du sax dinañ naan dangay ngay tàggoo nga wax ak kooku préfet ba pare réew démocratie réew mu mel ni Sénégal ak lu fi suñu maam daj bañ toll fii tey mënuñ ñu delloo ci jamono joo xam ne boo bëggee dem sax waxtaan ak dox mbokk wax ak sa beneen mbokk ci côté bi ñu ne la da ngay dem tàggu préfet wala police foofu la ñu bëgg indi collectif non lànk nag du ko nangu nu mu soofantalee tentative yi nga xam ne fan yi gis nañu ko ñuy dem di dem diaboliser mouvement bi naan dañu tasaaroo ci seen biir stratégie boobu ñu teg te yëngaluñu biir ñu teg pour tiital ñu xoqatal ñu bugguñu dellu ci suñu kër yi wala ñu distraire ñu nekk ci leneen ñun duñu répondre ci loolu au contraire dinañ leen tontu ci ñaari tontu benn bi tontu de justice la mooy suñu avocat yi ñi ngi jël lépp loo xam ne ñi ngi utiliser police pour di ko teg ci suñu kaw danañ dem chambre d'accusation layoo ko ak police ak police yi ko def police bu ko fi defati danañ la topp fu ñu la war a toppee ba fu mbaxane déemee yoone doone benn donc bii suñuy avocat ñoom Khoureyssi Ba ñu ngi xool naka la ñuy demee ci lu bref da di ngeen ko yëg pour ñu dem chambre d'accusation pour police yooyu nga xam ne dañuy utiliser bu bu police pour bugg a noot ay doomu aadama ne leen du ngeen fi opposé wu wala seen xalaat yi dañ ko bëgg a ba ñëpp bëgg a wéyale benn xalaat ku fi wax lu neexul mag yi ñu tëj lu mënul nekk. beneen tontu bi mooy comme flyers la ñuy bañ danañ am flyers fépp kayit gi ñuy bañ nii kayit gi kayit gi nga xam ne waxul lenn lu dul courant bi attanuñu ko te nguur gi. daf ko bëgg a jël jëlee ci suñu poos pour pour pour faj ay soxlaam yoo xam ne ci seen dundin la ñoom loolu la wax ne courant boobu ñun attanuñu ko te duñu ko nangu te nañ ko xeex ba keroot Macky Sall delloo ko woy woy woy lii lu tax ñu bañ na duñ ko wax ci réew mi comme que bañ nañ ko nag ba jàpp ci ko juróom si ñun dañ leen may flyers fépp muy tàmbali àllarba bii di ñëw te ñu ngi wax sénégalais yi képp koo xam ne. yaa ngi soxla flyers bi boo demee ci internet bi ñun nañ ko ci publier mun nga ko sotti yow nga dem def say flyers sépp koo gestu ci sa morom rek jël ko jox ko flyers bi nga mu jottali ko keneen mu jottali ko keneen waxuñ ci leneen lu dul courant bi dafa seer te Macky sàll mun na ko wàññi bu ko wàññiwut ndax dafa bugg jël alal réew mi continuer di ci gundaandaat te mu war a xaj faneen mu bëgg sénégalais jëlee ci seen poste loolu rek la kayit gi di wax loolu mooy ñaari éléments yoo xam ne bëggoon nañ indi nañu ko ci affaire flyers bi nga xam ne mu lañ jàppee woon suñu gars yi beneen bi ci topp mooy que suba incha allah buñ si yeggee suñu naataango Guy Marius Sagna dafa war a dem avocat yi dañ ko war a dem layal ci chambre d'accusation pour mu jot ci boppam Ousmane saar ak Fallou Galass Seck pour ñu jot ci seen bopp loolu nag dañu ne sénégalais yi comme ñii la leen bàyyi ca kaso ga ngir seen jàmm la yéen may leen xel ku mën a ñaan nga ñaan ñaanal leen ñu am jàmm ñu génn ci ku leen mu ne dimbali nga dimbali leen mais ku ko mënit nga dox ba foofu ñëw teew rek pour dooleel leen dina leen yokk te it dinañ xam ne Sénégal fàttewu leen appel boobu lañ doon def pour affaire kii bi. beneen point bi nga xam ne nag moo ci des mooy ne Noo Lank mi ngi wëyal mi ngi wëyal programme am mi ngi koy wëyal bàyyiwuñu kenn di ñu distraire. di ñu reeteetee yeneen reeteet yoo xam ne amul njëriñ ba ñu nar ñu yóbbu ci leneen mm. nekkuñ ci loolu suñu programme bi ñu ngi koy wëyal ba le 31 bi ci fin du mois bii incha allah lañ leen jox date exacte bi kañ la dinañ am beneen dox bu mag ci jàmm ak dal comme ni ñu ko daan defee bëggaat mbooloo mi génn comme ni ñu ko daan defee pour ñu continuer di wan Macky Sall ne ko lii sénégalais yi ànduñ ci sénégalais yi ànduñ ci mu jàpp nit ñi di tëj sénégalais yi ànduñ ci mu jàpp nit ñi mu yokk seen courant bi di addu seen kalpe moo tax barki démb gis ngeen la ko dal fële ca Londres mu dem benn sénégalais jug taxaw na courant bi dafa seer que na libeere Guy Marius Sagna munoo xañ nit ñi sa jàmm ci réew mi bu ñu demee buntu palais nga jàpp tëj bu ñu demee ci biir marché yi di waxtaan nit ñi nga jàpp tëj fan la ñuy waxee bu ñu la fekkee ci biir di jàkkaarloo yow wax la ko bu ñu la fekkee ci biir di wax la ko mënoo ñu xañ jàmm ci réew mi. ba pare bugg am jàmm ci bitim réew bi nga xam ne nit ñi am nañ fa seen liberté ñu agir